dalalaat fi sunu ñaari mbokk taalibe ku ci mel ni Cheikh Saliou Diouf ak ki nga xamante ni moo di Cheikh Mourtala Thiam ñu jàkkaarloo ci dëgg ngir feeñal dëgg googu tey ñu dégg ni yéen yàlla yàlla yi bu leen topp yàlla faw loolee nag ñuy jox Cheikh Saliou mu nuyo Cheikh murtala cham nuyo su ko defé ñu daldi égalé liggéey bi Cheikh Saliou bismillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi azim la ilaha illa huwa al hayyum lahu al al wa ala kulli shay'in qadir سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان القدوس رب الملائكة والروح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ مرتضى الشام منتمي تشام مولانا tamit taalibe الجوف الشيخ مرتضى Idrissa Diouf Cheikh Mourtala bi alhamdulillahi rabbil alamin jox seen ci jotaay bi bu bi mu di ñaar fukki fan weeru koor sa sangul Mawlana Cheikh Idrissa di ko màggal lan moo waral ñaar fukki fan weeru koor taala luar biasa kiban alhamdulillah rabbil alamin ya bisub ñaar fukki fanu weeru koor bisub islam la bis bu màgg la ci diine ndax ki nga xamante ni mooy man Cheikh Ibrahima Fall di baawu muridina ci la moom sangam ba xaadimal Moustapha ba jot bi baatu leer bi ñu ni bisub dibéer la ci fan ci weeru koor keroog mbir ma ca la mu nekk bis boo xamante ni nii fierté la ci képp koo xamante ni taalibe nga waaye fierté la ci képp koo xamante ni jullit nga ndax lan maam Cheikh Ibrahima Fall dafa nekkoon jëmm joo xamante ni nii dafa tiitoon boromam ci lépp te réere ko ci lépp mu defoon ay jéego yu mat di wër sëriñ bu mat sëriñ bu ko mën a àggale ci yàlla boroom mu jaar ci ay góor yu bëree bëri ci ni mu ko nettalee ba góor gi mujjee egg muy sëñ bu dufa Ngombe Touré ñi di ko wax bambalee ba fële seeti gi Serigne Touba Adil Moustapha jaayanteeg moom ci jaayante bu amul si ngir àgg ci yàlla Serigne Touba àggale ko ci yàlla boroom ba mu doon wax ni adoom sarsarale sës rek su ma yëkkatee sama loxo juróom-ñaari asamaan su ma wàccee sama loxo bët juróom-ñaari suuf su ma dëkk wut di jaay ma ne mbaa yàlla jàmm la kooku mooy ci Ibrahima Fall. sama bët yii nii seen Idrissa Diouf mu ne jaay nañu ak sangam seen ak asan ba mu àggale ko ci maakaama seen Ibrahima Fall boobu noonu ba mu àgg maakaama bi moo war a ci Idrissa sant yàlla ba sam bisu ñaar fukki fan ko ci iwoo boole la ko ci Ibrahima daan def di la jaajëfal ci kàddu yu am solo di wax ni Cheikh Saliou yow tamit lan nga ñuy leeralal ci cosaanu ñaar weeru koor ñu wax ni fukki fukki yi yërmande la fan ya ca topp njëggal la fukki fan yu goyal la ñu tolloog ñaar fukki kaddu googu cax yi nga xamante ni suñ ko koy cax jaamam ni Cheikh Saliou nan nga ci mën a alhamdulilahi rabbil alamin eh, gannaaw bu ñu rafetloo sa laaj ñu ngi ciy indi tegtal boo li nga laajte nii mooy xaaju kaw ndax suñ ku nekk dégg na ko ci aaya bi mu naan huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatuhunna umul kitabi wa uxaru mutasabiqatun nee na moom yàlla moo cee aay aay yi nga xam ne moom la ñu jëfandikoo mu ne mu ne yonent bi alayhi salaam am na ci aaya yoo xam ne ñoom ñooy baasu téere bi hunna umul kitaab mu ne am na yoo xam ne nag mën naa nekk ay lay yoo xam ne yu yaatu la yu ci mel ni yu ñuy attee sa yeg yooya waaye nee am na yoo xam ne moom boo ko xoolee mooy baasu téere bi maanaam mooy li nga xam ne moo ci ëpp solo kon fii nga laajtee mu ngi mel ni laajte nga saahir ak baatin mu ngi mel ni laaj nga xaaju kaw ak xaaju suuf mu ngi mel ni laaj nga li yàlla wax ne allahu lakum ayaati laalakum tatafakkarun loolu mooy je vous expose ces versets avec fu méditier kon laajatoo mbind mi rek waaye xam-xam bi nga xam ne moom lañ génnee ci biir li yàlla bind moom nga nekk di laajte nii ndax su dee fukk yu njëkk yi njëggal la da ngay dox ci jawaabu tur yi nga xam ne moom la yàlla jëlee ci benn bu nekk bayaan ko mu leer muy nit ki dafa am foom ne fa ne te foog mu jéggi ko pour loolu mu mën ci am ndam ndax tey fukk yooyu nga xam ne moom la ñuy jéggee kenn ku nekk tànk ñaari tànk nga am benn bu nekk fukki baaraam la te moo lay permettre nga mën a jéggi kon tànk woo li nga xam ne moom mooy sawara dem ci aljana jéggalu yàlla gi jotagoo ko ndax yàlla képp ku mu nga mucc te ku mu jéggal aljana ngay jëm kon baaraam yi jublu sawara baaraam yi jublu adduna baaraam yi jublu lenn lu dut yàlla moom ngay jël jubal ko ci borom bi subhanahu wa taala yàlla jooju gërëm sax loolu kon jéggi nga kon jéggal mooy nga jéggi lan ngay jéggi dafa am pax yu nekk ci sa kanam moom ngay xam-xam ne Iblis la ko tracel nga jéggi ko gannaaw ba nga muccee ci noon bi Iblis di noon jaam kon jéggal gi mu ngi feeñ ci sa jéggi gi nga war a def jaare ko ci sa fukki baaraam yooya la nga xam ne mooy fukki moo ci topp yërmande bii nga xam ne ba tey loxo bu ñu yërëmee nit rek loxo la talal ñu jox ko te kenn ku nekk xam naa la sa sakartum la si dannakum jamono ja nga xamne ne ngi ñaan sa borom eh, sa borom mu ngi lay dolil bo sante rek mu dolil la te jamono ji ngay sante dafa am lu la defalon moy yalla deñul ci dila jox rahman gi yemul ci dila defal waye daf lay toftal lepp lo xamne jeriñu sahir la ak batil la te laaju la ci dara kon jamono bi nga xamne yalla yàlla na la moy fukki baaraam yi nga xamne mu ngi ci sa loxo bi te yalla nga koy tàllal sa su nek lim doon wax ne qul huwa wa asra duwaanin usqillahi wa la tarsuha fi al ardi mufsidin mu ne lekk leen naan leen ci li yàlla di indi lépp waaye li ma soxla rek mooy bu leen def ñaaw def ci kaw suuf si kon képp koo xam ne yàlla jox na la juróomi baaraam suuf ak juróom-ñaari kaw bii na nga ko jéggee waaye beneen itamit nañ ci sàkku yërmande yàlla nga yëg sa lottu gi tàllal sa loxo yàlla ci li nga xam ne moom mooy la hawla wala quwwata illa bi allahu alali azim nga mën a am loola loolu mooy sax li ci gën a li ci gën a fës waaye li nga xam ne moo ci ëpp doole laa bëgg a wax mooy maqaama goreel bi nga xam ne yàlla dana ko goreel jaam bi nga xam ne euh, euh, jaayante na ba agsi fi mu war a am ndax baatu goreel mooy nga nekkoon nekkatoo ko baatu goreel mooy charte yi la doon teg teggil nañ la ko yow yaay ki nga xam ne du promotion mooy tax ngay jaamu yàlla ndax tey constaté nañ benn mbir ci jamono bi dañoo ne weeru koor bi euh, promotion la léegi promotion la moo tax nit ñi di njëkkante jaamu yàlla promotion la moo tax ñi dañuy jaayante yàlla promotion la moo tax ñu ne dañuy jël suñu mbir di ko jox yàlla lu tax mu ngi mel ni ma ne la am na koo xam ne orange lay liggéeyee wala orange la nekk wala client orange la sax tànk tànk li nga xam ne mooy promotion crédit amul waa ji du jënd crédit kon waa jooju soxla soxlawut ko orange daf koy neexal pour mu jënd crédit kon jàmm bi nga xam ne yàlla daf lay neexal yow pour nga jaamu yàlla war ngaa seetaat say mbir te ci baatu gorel laa bëgg a kon buñ lay gorel du bi mooy tax yalla goreel la waye da ngay def li yalla di wax ne wa atabir li ibadatihi moy ko xamne dafa sax ci jaamu yalla ndax li mako bëgg indé moy gorel gi ci ñett la nek ak ci ñeent ndax yalla boko waxal bopam inna rabbukum allahu allazi xalaqa samawati wa ma fi ardi fi sittati ayamin suma istawa ala arshi yudarrirun amra kon dafa ne ci juroom ñaar ci juroom benni fan la tabax sama suuf ci juroom ñaar bi mu tok aras kon la nga xam ne mooy juróom-ñaar yi mooy ñaari dégg yi nga am ñaari gis yi nga am ñaari nokk yi nga am waaye ak benn kaddu bii nga am loolu mooy juróom-ñaar yi. yaakaar na ñu daal di jubluwaat ki nga xamante ni moo di Cheikh Mourtada Thiam moom mi toll woon ci leeram li nga xamante ni moo di guddig maam Cheikh Ibrahima Fall kon mën nañoo wax ni guddig maam Cheikh Ibrahima Fall li muy tëttale dëgg-dëgg daal mooy yoru àgg ci yàlla kon Cheikh moo macam a ci fi nga toll woon ba keroog ñu egg ci fenkaayu fajar bi. ak saako yi mun Cheikh Pape ndaxte jaam bi dafa am lu tax yàlla bind ko muy wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduni yàlla bindu la lu nga ko te da indi ay sax ne la ngay jaar ba mën tax borom tax an tax bu ta'rifuuni yi fa kayfa an a'buduun kon nag yow sama jaam yi balaa la may jaamu faaw nga xam ma xam-xam boobu nag moo nekk xam-xam boo xamante ni bu tënku rànkee la ci jamono ba tax suñ borom yebaloon ay yeneen ñu doon ci cent vingt quatre mille téeméeri junni ndaw ak ñaar fukki junni ak ñeent jox leen laa ilaha illallah ngir ñu xam la yàlla ngir jaam yi mën a jaamu yàlla loolu nag nekkoon béy daal di ruus ba ak ci ci Sooraan kenn ku ci nekk ci góor yàlla yi ku ci mel ni Cheikh Abdou Khadir Jilani sot ci ngir Cheikh Ahmad Tidiane sot ci ngir Serigne Touba sot ci ngir mu jaar ci digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall mu yooni mur ju laah Serigne Touba waxoon ne minallaahi ci yàlla laa jógee ilallaahi ci yàlla laa dellu ay na muridullaahi ana jaam bi nam ci yàlla nga dem kon boo amee kan rek da ngay xam ni bépp woore bu jëmul ci yàlla rek woote boobu neen la ndax ay nax rek ci nga jëm te képp koo xamante ni dee ci ay nax dégg ci ay nax la mu nekk loo xamante ni lu réer la ci jamono ba suñu sang bu tedd bi Cheikh Moussa Cissé njàmbee borom daaru daan yoonu murit fas naa ko yeesal ba mel man maa ko sos ci lan ndax ñëpp ñi nga doon woote laa ilaha illallah yàgg nañ ko woote mais Cheikh Moussa Cissé njàmbee borom daaru daf ci yëkkati ay kàddu yéene mu ni laa ilaha illallah mu ni secret ba laa oon secret baatu laa ilaha illallah njàngal borom daaru nee na loolu la woon te loolu mooy nga xamante ni mooy li dafa jaam ndax Serigne Touba ci indi tegtal dañu fa kullu man zakaraha kon yëwul ci kàddu gi rek nga tudd ko te kullu man zakaraha la wax muftaxida man mun a xaar taxalal jënd dañ fata kon da nga koy nangoo tudd yow ja ndax laa ilaha illallah képp ku la loolu rek bokk nga ci jullit suñu la rey sa alal ñëw na sa deret ñëw na mais yow ci dugg ji da koy nangoo xam yow ja da koy nangoo gëm faf ko ci sa xol kooku mooy enrichir bi daal mooy jaam bi nga xamante ni nii jël na gisam jox yàlla jël na déggam jébal yàlla jël na jàppam na yàlla jël na dundam jox na yàlla jël na kàddoom jox na yàlla ba léppam jeex ci yàlla foo ko jàng maa daaw ni ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu foo ko jàng maa daaw loolu liggéeyal yàlla lu yàlla gërëm bépp jaam boo xamante ni taxawoo foofu rek nekk koo sax jaamu yàlla bay liggéeyal yàlla suñ borom ndax suñ borom dafa am fu mu dawoo yaa ayyuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki raadiyatan mardiyyatan fadkhuli fi ibadi wa dukhuli janna kon di nga yëgee nii sa bakkan dal na sañ nga toog toogaay bu njëkk kenn du la déranger man nga léegi xéewal yu neex man nga tëdd fu nooy kon sa bakkan bi sa bakkan di dal nag ci la suñu borom woo ñu ne ci man yàlla mais jaam bi bu def ci dellu ci yàlla fan lay jaar jaam bi suñ dëpp ci dellu ci yàlla fan alquran yi mu ne di tekkal yaa alladina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasilatu wa jaahidu fi sabilillahi la'allakum tahtadun yow jaam bi gëm yàlla xam ni safara am na ajana am na dund am na dee am na di penc am na mu ni demal nga wuti ji wasila nga jaayante moom fi sabilillahi ci yoonu yàlla jaayante boobu nag moo nekk jaayante bi nga xamante ni moom la moom Cheikh Ibrahima Fall jaayante woon ak Serigne Touba du jaayante askan dede iya du jaayante dëkk du xeet du sant mais ci yoonu yàlla. ci alquran ci weeru koor la wàcc Cheikh Saliou wax nañ ni suuru ramadan mooy weer wi lakk bàkkaar ndax weer wi ci kaw la wala jeneen weer la ñu wax ni weeru koor bu tëkkee suñu borom day tëkk. wattu safara yi tëj buntu àjjana yi tënku seytaane te gis nañ ni weeru koor ci la fitna bi di gën a bari ci la xol yi di gën a tàng kon lan mooy seytaane ak ban la ko yàlla tënk te it bi balaa may tontu li ci kaw dama koy sof ndax wa ma kaana ila alaykum min sultaanin idaa da'awtukum fastajabtum loolu mooy Iblis dafa wax ne buñ demee ci kanam yàlla Iblis day boppam dana wax yàlla ne sa jaam yi nga xam ne ñoom ngay wax nii ñoom amul ma war a wax parce que dama leen oore ñu uy li tax nag ñu koy jëng ci weer bii. nga xam ne weer bii gëneewul yeneen weer yi dara lu dut li yara def taxsiis ci weer bi ni nga xamee ne laylatul xadr yi dafa gën yeneen bis yi loolu laylatul xadr yi amul dara lu mu ci jëf lu dafa neex yàlla rek mu wàcce ko ci bis bi noonu la itamit weer bi gënee ci biir weer yi nga xam ne loolu bu xusuusiya maanaam jëfuñu ko comme ku jaayante woon ci badar ba am mbir ma déedéet waaye yàlla la neex mu wàccee daraja ci bis yooyu wala ci weer yooya ah. am na ci ay jaam itamit yoo xam ne yàlla day jël taxis wàccee ko ci ñoom kon la nga xam ne moom la iblis layal boppam mooy dafa oo jaam ñu uy si ko kon jamono bi nga xamee ne oo na waaji waaji bañ rek kon jamono jooju jëng na iblis si kanam waaji te weer bii ñu toll kenn ku nekk xam na ne dañuy gàntal waaji ci yenn mbir yi waaye dañuy nangul yàlla ci yenn mbir yi waaye dafa am àpp bu mu na fi nga xam ne moom laa bëgg a tàmbalee nag mooy weeru koor bi dafa am nu mu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون On vous a prescrit Asiam comme on l'a prescrit devant vous, afin que vous ayez la piété. Non, non. kon koor gi yàlla soxla wu ci xiif bi de dafa wax ne indi nañ leen koor na nga xamee ne moom lañ ko indi loon ñu njëkk ña ñu ne ko loo ci soxla mu ne laxalakum tattaqun ndax ngeen mën a ragal yàlla waaye nag li nga xam ne mooy saayir bi fës na ayaaman mahdudatin fa man kaana minkum wa baysan aw ala safarin fahidahumul ayaamil uxra loolu dafa leer mooy képp koo xam ne euh, woor gi fekk na la ci voyage wala bu fekk la fenn da ngay fay la nga xam ne moom nga orutoon waaye waa ji nga xam ne dem nga bu mënoo ko def nag mu ne taxaamu miskin na nga jël miskin nga leel ko loolu shahir bi la waaye baatin bi nga xam ne moom nga laaj mooy shahru ramadan allazi unzila fihi alquran yemu ci dafa ne hudan linnaas yemu ci mu ne wa baynatin min alhuda yemu ci mu ne wal furqan kon dafa am yu bëri yoo xam ne moo ci daje loo xam ne wéy na wàcceeg alxuraan képp kon anniversaire u alxuraan jamono jii ci la nekk waaye la nga xam ne moom mooy ci la wàcc lan moo tax mu wàcc ci saayir bi moo yenente bi moo toog aaya yi di jógee ci xadratul qudsi yu di wàcc ci moom loolu mooy li fës nit ñi di ko gis waaye na nga xamee ne noonu la waaji di def ba aaya yooyu doon jógee ci maram ba di wàccat ci moom nam daan wàccee ci waaja loolu nag baatin la te baatin dañ ko duñ ko fekk mukk ci waxtaanu biti kon li nga xam ne mooy wàcceeg alxuraan foofu rek la ci mën a nekk waye tej gi nga xamne dañuy tej ay buntu sawara di ubi ay buntu aljana ma ngi koy waxtane legi waye dañ koy sofat pour mu mat waye xam nañ ne buntu yi nga xamne moy sa kaddu gi moy sa dund gi moy sa gis gi <coughs> wala moy sa bopp sa deg gi benn bu ci def dafa am yo wara tej am yo wara ubi bu fekke juróom-ñaari aljana ngay wax da ngay xel di wax lu bax <coughs> di wax lu bax di dund lu bax ci ñaari di gis lu baax ci ñaari boor yi di dégg lu baax ci ñaari boor yi bu ko defee juróom-ñaari bunt yooyu nga xam ne mu ngi ci yow mu ngi aljanna bu fekkee yaa ngi koy def ci lu bon tëj nga yu àddee day ubbi nga yu sawara yi kon kenn ku nekk <coughs> war ngaa fexe ma xam ne bunt yi nga xam ne moom la la yàlla defal nga tëj ko ci sawara te dootul ubbeeti waaye ubbee ko ci àjjana te bunt yooyu buñ tëjooti <coughs> waaye li nga xam ne moo xam ci jamono bi ñu toll. mooy saison bi bu koor gi di waaj a ñëw dañuy dem ba ci kanam ñu tëj buntu sawara yi ubbi buntu ajjana yi bu koor gi demee ñu tëj buntu ajjana yi ubbi buntu sawara yi te yàlla waxul loolu dafa ne rabbu samawati wal ardi wa maa baynahuma moom moom moom lépp moom yàlla mu ne faa bu du ni leen ma wa aktabir li ibadaat yi te ngeen sax ci jaamu yàlla sax nag buñ koy tegtal dañ la naan garab la garab buy déplacé wu amut moo tax képp koo xam ne li yàlla soxla ci koor am nga ko da ngay jaamu yàlla te la nga soxla ci sa alal pour jaamu yàlla yàlla wut ko ndax jaamu yàlla diggante dox la ak jàpp ak kaddu ak dundu ak gis ak dégg ak la nga xam ne mooy xal xel mi xalaat ak la nga xam ne moom mooy xol bi loolu képp koo xam ne jeexal nga ko ci yàlla tëj nga buntu sawara yi ubbi nga buntu aljana yi waaye li ngeen li mooy nga bañati koo tëj nag moom buntu aljana yi moom asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi jaajëfoon ki nga xamante ni moo di Cheikh Saliou nekk sang nekk cheikh mu rabbi nekk ku mag tey li mu doon képp koo xamante ni xeeboo jëmmum ji dana la yóbbu ko ci xadarab yàlla bu sell bi noonu la ñuy jaajëfal cheikh Mourtada Thiam di wax ni loolu moo nekkoon seen plateau bi nga xamante ni ko ci bis bu mag bii nekk bisu ñaar fukki fanu ki nga xamante ni moo leen doon jaral leen mbir yi